Wow, quelle classe Wa fi mom rafet na di li nak lañuy wax paradis sur terre deug deug xaw won ni lu mel ni am fi vraiment du nouveau à Dakar Talen ak jam ci bas Imo yéen sama mbokki tukkikat yi yeen sama mbokki émigré yi moo xam nga ko, biti réew bëgg fo passer ce séjour à Dakar Yeen ni bëgg passer sen temps pour vider vos esprits Yeen ni nga xamante vous êtes tout le temps en activité yeen ni di wo fu ngeen noppalo. Yeen ni bëgg a fêter seeni anniversaire ak ñi am programme et séminaire Talen ak jam ci résidence Basit Imo da ngeen bëgg fu chic fu ngeen passer sen temps jaratul dem ba sali, ni nga paru wala Rose suite yi nu des appartements meublés ay studio ay mini studio ay chambre simple très bien meublé et bien climatisé chambre yi salle de bain ak cuisine incorporée Basit Imo xoolal suñu studio yi chambre salle de bain amna itam salon pour passer son temps xoolal suñu suite mini studio yi di résidence meublée bu discret am sutura lol, équipe bu dynamique et professionnelle ba noppi dañu lay défal accueil bu chaleureux site IMO, moom mën nañu jël ay permanent dañuy jël ku bëgg passer ay séjour am mën nañu jël ku fa bëgg def 24 quatre heures waaye itam mën nañu jël ku fa bëgg def 3 heures de temps voire même 1 heure maa la ko wax résidence bi dañu koo defar pour kenn ku ci nekk mën cee gis sa bopp fexe ba li ngeen di yittewoo du ngeen ko dem wuti feneen ndax am nañu ko fii ci Basit Imo kaay ma wax la boo fa bëggee dem nooy def adresse baa ngi fii ci cité Soprime ca boori croisement 22 bu Parcelles Assainies bu loolu doyul mën ngeen a jokkoo ak sunu ay agent ci 77 698 95 95 ou appelez le 77 808 20 81. Bienvenue à Dakar, résidence Bassit Imo, file de Kneré. ñàpp koonam man ndeke dund moom billaay kala naka ñàpp koonam ndekete man de man yowmal xiyaam laa nekkoon nekk safara di dund si safara bi te xawma ci woon dara barki rasululaay kii moo katt koonam

Niyok mo ako mo. Hmm? yal na def na fi dee Yalna na def na fi dee dotuma wujjulo. xam nga la la bëggoon ñu wax ko Moy liñ ma doon wax rek waay la ko loolu da fay xaj ah da ngeen ma communisme

boo ko fekk ñax yi day nekk ci moom kooku mooy pajaas. pajaas bu dëgër. bu dëgër waaw. tàngal ko. <laughs> yàlla nga gudd yàlla nga gudd fan yàlla bàyyi sama kanam yàlla bàyyi sama kanam nga gudd fan. yàlla naa fi yàgg. yàlla nga gudd fan yàlla naa fi yàgg. café bi. man daal sama yaay moo jég saay woo am lu ma wax. lu ma xalaat ko nag muy idée bu naan. waxal lu wax sa ngi ngi jabar. amoon naa ko dëgg fa waa loolu dëgg. amoon naa ko day ci teg amoon ma dafa fóotu. amoon nga ko waaye bu mu faatoo ba tey yaa ngi nii toog. voilà na rek waaye ca yow laa déglu. waaye nag fu mu toll wax fa ci gi sama yaay kenn kudul yaa aana nga takk ko. yaa aana ma sama maam yaa aana mu yaay tànn na fi mbay. illah illah aana mi nga xamante ni dafa ménopause. <laughs> puso jóg puso. waaw waaw bàyyi de bàyyi. ah bant bi toj na bopp de. waaye dina tojati boppam bi. man maa wax wala sama yaay nan ngay génnee sa idée ba pare nag bàyyi koog man. yow dina ko génnee. bàyyi ma mu kaw a weex tuuti. doos bu dëgër. dëgër bëgg lu dëgër. te <laughs> xam naa loolu xam naa loolu <laughs> yàlla nga gudd fan. manul ñàkk ci dund moo di koom-koom bu nit ñi amee nga am soo wutee am boo toogee itam di gën di am mooy cangatu fataan fataan cangat gi sang bi moo ko fi def ñi ko xam duñu ñu fa gëj ñi ko masalaal rëcc wuñu ko cangat gi fataan fataan la foor na fooraay goo xam ne ku repp koy laal ñaari yoon ci at mi lu ko mooy yow mi ko laal ñaari yoon ci at mi da nga génn réew mi benn wala daañu la ñamal kaso ñaar loole nag mooy firndeel fooraayu cangat gi te la mu koy defee seerul yëpp ma wax nag ay mbir la yoo xam ne liggéey lay laaj balaa koy def yow li si xaar ko gis say mbir génne say sa sarax doog a sóob yow ci liggéey bi numéro téléphone 77 972 98 81 Serigne Modou Gaynde Kéemaan Mathieu Kër Sambaraxi Njóobeen bégte la ñeel réew yàlla nga gudd fan yàlla may la nga gudd fan ay fani fani fani yàlla boo feebar yàlla bu la dara jot corona corno cornele yëpp yàlla na dal na fi ak yaayam ak ndijaayam gis nga ndijaayam bi comme góor jigéen day wax loxo yi xalaw xalaw di kalak kalak yi munoo ko considéré considéré góor quoi <laughs> man bugguma góor bu efféminé góor bu efféminé efféminé loolu baaxul ci góor quoi. góor da ngay dëgër. góor day mel ni yow. Ndiol tekk yow aana mii nga xamante ni bu ma demoon di ko cëppal du nangu de. Ah, moo ma mag fuuf asafurlaa maa ko mag sax.

ronat dëgër na nga tey wax góor tey la sama ennemi la xalaat la est-ce que bëgg la moo tax mu def la noonu yaay yow xam nga ni mbëggeel yow ñaar ñu bëggante rek début ay defante lañ doon def loolay bëggee dëgg jaar dafa jantal na dañuy commencé essayé moo ménopause la premièrement ah deuxièmement ba di neexut waaw mi ngi ay feeri jongo ba bokkul góor jigéen bokkul man man damaa xaw a doy waar rek waaye daanaka euh, taxumaa yàqu noonu te moom yàqu na ah mbaay ah, dara kër mur le gële de yàlla xam ne ne boo ko doon saam sax dama koy dégg <laughs> bu leen ma dam wa jógal defal ma defal ma ndox loolu dinaa ci xalaat Um. Ah, eh, dinaa ah, jox la waay waay sama de bii sa bant a pas que mu ko yow. foo ma xoolal. eh dit ba ma koy wax bi daan ko de ah, la ma ne nga nopp ko a gis nga en général nag combat ba lay saf dëgg ku ne day jaay sa borom xam. mal. ma ne waaw ma ne déet pas ma ne ne a ko ràmbal xool ba ah kon dama wax rek ndax yow yow bëgg femme ba ngay gone ba bëgg Oh, kalın, ben anlamına it. ko ya, <laughs> di ma laaj la toogal bul yàq na ñëwee toogal kumpa day lay rek yo xam nga ne man damaa dañ kumpa laaj ma balaa génn ndax day sax noo def ak moom nu mu ñëwee ak nu mu defoo ni mu feemoo dal kii de mu ngi yokk kii xam dara looy wax ni kon na fi may moom lan la def ba tey amul dara looy wax ni ngi gëm na fi mbay xamul dara loo ko def na lii lan la xamul petit déjà lii boo raayee bopp bi sax mu foog ne moo ngi àjjana ak jabaram ji ni mu rëy làmmaj ngarti ngarti ngir fi gitti naka def ni moom defarul jëkkëram ji dara fii ngi wàcc ah man de lii bett na moom du ci ku góor ki de ci ku jigéen gi la ndax sa jëkkër boo ko yoree danga koy wan ay feem yoo xam ne jigéen bu mu demaat dara du ko du ko waaye dara ak bandi bandi loom gu métti gi mu nekkee ci dëkk bi làmmiñam bu rëy bii man de comme kuy door a juddu loo xam ne xaw ma ko petit des au lit mu tëb naa loolal la naroon naa ko bàyyi mu dem nag mais bàyyi ma faj tuuti ndax neex na nag ñoo ci biir de bàyyi ma savouré dangaa doy waar bàyyi ba mu neex baax na savouré ma door a bég <laughs> kii xoolal lii lii defaguma dara de yaa ko génneel muy lox damaan lii lan la lii rek muy lox damaan man ko duma médecin sa température xamul <laughs> waaye yow kii lii rek xamu ko suñu dënn bi rek te ko xam xamul dara man de lii woon jëlee na ma kaw man waaye nee naa sa xol dina sedd de dem man la dama la xajul fii